ñu jeexalee ko nag ak euh, kii di Bouba Ndour mi ci ay kàddu wax ci jaar-jaaram ak diggante ak magam ji di su Ndour ak doomam Philippe Ndour ñu dem dellu si waat. dem na am naa chance dem États-Unis bi ma njëkk maak Youssou Ndour ñoo bokk ndey ak sama premier liggéey si laa xam ne àddina 1988 je le dis mi ngi may seetaan 88 laa laa gëj a jël un franc ci Youssou Ndour j'avais 17 ans billaahi wallaahi jàkkaarloo naa ne bi muy jógee États-Unis di dem jógee bàyyi ma foofu jox ma tuuti xaalis pour ma kii si laa ko gëj laaj un franc ba tey jii fi ma toog dama xëy suba dem ci supermarché yor bale bale xoola benn moment xam nga la la bi ngay booy fobeere ñu indil la bouteille yi kii nga war a jël bouteille garantie du ko dugal ci kii nga sentir nga ne man Dakar laa jóge xam nga kii nii mais loolu est-ce que loolu du man moo ma inculqué tey jii nii man su ma màggee ba sama doom am opportunité dem États-Unis il s'appelle Philippe Ndour ñëpp xam nañ ko day way benn moment bi quand il rentre xam nga ko da ngay dellu États-Unis trouve-toi un boulot et nga opportunité dem boo demee ne compte pas sur moi da ngay jàngi boo wàccee demal nga liggéey parce que boo boo dellu see fii di nga xam ne li nga mën a jàq mais il faut qu'on incite les jeunes là à trouver d'autres solutions pourquoi pourquoi il n'y a pas un Guinéen qui chôme au Sénégal vous ne vous posez pas ces questions mais non pourquoi on n'a pas un Guinéen qui chôme dans au Sénégal ëpp ñu diine waxtu du leen raw jërëjëf Modou Diouf ak Abdou Top Alaaji dégg nga lii bu bëndu wax euh, nee na moom teel na jël indépendance am euh, teel a dem bitim réew ñafe xoolul li magam am ba mu demoon ba jaral ko muy dem si yenn grande surface yi di fa fobeere nee na loolu bokk na ci li tax tey jii nii mu mën a taxaw jàkkaarlook doomam di Philippe mën ko wax ne ko soo jàngi jee ba wàcc demal nga wuti liggéey parce que man bu yaakaaree si man. waaw buuba ñu ngi koy nuyu. Euh, di ko ñaanal jàmm. amiin buuba macha allah alaaji yow soo reetaanee rek ba xam ne naroo woon non non euh, wax joo xamante ni bii euh, wax ju am solo la mm. mu nekk wax joo xamante ni euh, ñi muy waxal mm. duñ ko mën a dégg ndax ndax buuba daanaka liñ koy mën a wax rek mooy ku am kudd du lakk maanaam moom dafa am kudd kuy kudd gi du lakk Youssou Ndour ay kuddam mais déggoo lu mu wax nee na xaw ma quatre-vingt xaw ma ñaata la gëj a laal alalu Youssou Ndour waaw kon laal na ci rek moo am solo laal bi mu ci laalee booba la am solo buuba fu muy liggéeyee. TFM mais day liggéey dañ koy fay. waa dama def fu muy liggéeyee. TFM. yore prince xaw ma prince la fu muy liggéeyee. si kii wu magam. TFM lay liggéey. waaw fa lay liggéey. fa lay fayoo. mais alaaj loolu bokkul loolu liggéey la ñàkk la du loo xam ne dañ la koy may. mais mais mais xam nga. tàllalu loxoom pour ñu may ko ko. est-ce que buuba tey. waaw daf doon neex lool mu ne bi ma jógee États-Unis hmm. ñëw dama bàyyi lépp sama mag ne ci samay mbiri bopp. ñu xam ni. prince Axuma mais mais xam nga man li may déggee ci wax buuba gi maanaam buuba dem na États-Unis bale na def na lépp. échec na delluwaat na ci magam mu faat ko. voilà ñu nga bëgg koo déggee noonu nag tamit mooy li nekk du question li nga dégg ma li ma li ma gis laa maanaam buuba bi mu fi bàyyee magam bi mu mu jee laal nee alal ji 88 si la passe dem États-Unis ba mu demee États-Unis essayé liggéey mënta liggéey mu delluwaat ca magam wala déedéet la. ca mag ca mais dafay liggéey. buuba fan nga mës gis mu liggéey furut ci Youssou Ndour. waaw mais. c'est li muy wax nii xam nga kan moo ko mën a wax. Hmm. yàlla mooy def loolu parensaay ci famille. Hmm. Youssou Ndour mën na ko wax Youssou Ndour moo am mérite moo fekk fu dara newul. Hmm. mu ne fa. mais bu dul woon nag. bu bëndoo peut-être télé bu mu ne fa. waaw Youssou Ndour ne liggéey ay rakkam yépp jaar ci li nga xam ne mooy wërsëgam comprendre nga hmm. mérite bi day dellu ci Youssou Ndour parce que moom la sunu borom jagleel loolu hmm. Bouba Ndour maanaam ñoom loolu mënuñu koo taxaw dégg si maanaam mënuñu comprendre jeunes yi nga xam ne hmm. amuñu Youssou Ndour maanaam jeunes yi di mbëkk gaal gi genn waal gi di dem amuñu am Youssou Ndour amuñu mag bu tudd Youssou Ndour boo xamante ne bi ci lañ mën a jafandu ngir jàll buñ ko amoon duñ ko def ay sénégalais lañ yoo xamante ni dañuy taaba taaba ñafe pour daal dee dem pour jéem a liggéey xam nga buuba dafa wax beneen affaire. joxe na même doomam jël joxe na exemple doomam. Hmm. mais doomam ba tey dafa am buuba buuba am yuusu du dëkk parce que doomam buuba forcé nañu fi ay woyu doomam sax. Hmm. Philippe. wax forcé ñu ko comprendre nga <laughs> yaa ngi dégg. Eh, eh, te daf buuba dafa wax beneen wax boo xam ni. Eh, moo tax ma ne bon gars yi parents dañuy nekk ci plateau télé mais parents yi xamuñu. xamuñu xamuñu dëkk bi. xam nga daf ne gisoo benn guinéen. buy chômer buy chômer. pourtant boo demee Amérique sénégalais yii di dem Amérique. Mm-hmm. bu ñu demee dañuy liggéey de. te ay chômeurs américain ña fa. boo demee France. sénégalais yi dem France dañuy dem liggéey de mais boo demee am nga gis nga ay xale yoo xam ne ay chômeur lañ yoo xam ne ay français lañ du dëkk. Ah. léegi fii ndakaaru gi dama koy léegi sax génnatuma dëkk bi damay ñëwaat ci biir dëkk bi. Mhm. boo jógee fii jóge euh, booy jóge Saalum. Mhm. ñëw ndakaar bu ñëwee dañuy liggéey de. waaw booy jógee fii Bawal ñëw fii Ndakaaru bu ñëwee dañuy liggéey de. dañuy liggéey comprendre booy town yi nekk ci town bi juddoo fi ñoo liggéeyut comprendre nga. Mm. kon mbir mi du mbirum sénégalais mais dafa am noo xam ne noonu la réew di doxee booy yi liggéeyut xam nga lan moo tax liggéeyut mm. da gis fii booy boo xamante ni. commerce bi fi mu toll nii ñan ñoo ko yor boo ñëwee dañuy wax bawal bawal am lu jëm ci affaire électronique yi la moo yor saalum saalum yi ñoo ko yor mm-hmm. yaa ngi dégg boo ñëwee tey jii ci maçon yeeg yooyu séeréer ngay gis ñu ne fa parce que dañuy am nijaay wala dañuy am kii boo xam ne ko sëfóor yaa ngi nii boo leen gisee ñu ci bari fu ñu dëkk bawol parce que dañoo am seen benn grand frère wala seen benn nijaay boo xam ne ma nga jóge bawol ñëw nekk fii sëfóor mm. bu paree woo leen ñu indi leen ci garage yi ñu commencé di liggéey day ñëw rek xëy mais boo yi juddoo Dakar seen parents yi dañuy dépenser lu bari ci njàng mm-hmm. ñu dem ba jàng ba yor seeni diplôme bu ñu génnee te dañ leen di gëmloo ne ne bu ñu ngeen génnee war ngeen a mën a jàng ñu génn gisuñu jàng gisuñu liggéey politiciens yi fawee alalu réew donc su ma la déggee mooy mbir mi maanaam da ngay jàngal nit ki mhm. te bi biñ lay jàngal dañ la promettre ne boo génnee lii ngay doon lii ngay doon maanaam ci biir njàng ma sax dañ lay xeetloo yenn métiers yi. loolu waral tax mu jël doomam yóbbu ko extérieur. boo mu jàng pour mu boo génnee am na yu bari yoo xamante ne bi doo ko def. Mm. mais léegi Sénégal booy yu génn nañ ci lool. Mm. booy yu bari fii di ambulant. genn wàll gi yépp ay tey ay lan lañ. Mm. xoolal tey nga jël booy boo xam ne mi ngi jóge Saalum. jàngut dara buy ñëw fii di liggéey mais booy étudiants yi nga xamante bi ñu ngi jóge Saalum bu ñëwee fii ñoom ñoo yor seen diplôme yi daanaka genn wàll gi amuñu liggéey. wallaay comprendre nga. Mm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi problème bi problème mu doxalin bi ñuy doxalee réew mi la mm. ndaw ñi bañuñu liggéey mm-hmm. bëgg nañoo liggéey trop. Mm. mais liggéey moo yaa ngi dégg mais liggéey moo fi amul. liggéey yi mu wax amoon déggoon naa ko mu wax bay wax ñu jëm ci wàllu raxas oto yeeg et cetera affaire yooyu. Mm-hmm. comprendre nga am na loo xam ne moom mii tey fa mu doon liggéey lu tax mu demoon ba Amérique daw. di raxas ca restaurant yi bu ñu ko indi woon fii ci restaurant Dakar. mën na moom rek sori na doomam lan moo tax mënu ko def. fii waaw lu tax doom ji fi mu toll nii mun a ñëw raxas bi. restaurant du ko ko def mais da ko yóbbu Amérique pour am na loo xamante ni bii moom la koy dawale. donc yu mel noonu. Mm. mooy li nga xamante ni mooy problème guinéen yi. Mm. dàq ñoo liggéey. sénégalais yi déedéet. Mm. mais dadi dañoo jóge seen réew ñëw ci beneen réew. sénégalais bi jóge ci réew mi dem ci beneen réew mi ngi liggéey yeneen liggéey. yoo xamante ni bii mi ngi koy def ci la yor njabootam ci la yor léppam kenn dàqu leen a liggéey. Mhm. ay ndaw ñu bëgg liggéey lañ. ñi ngi nii boo déggee yoon woo dégg ñu koy wax lu ne dañ ko ciy daj. pour dem mhm. lu tax pour mën a jariñ seeni waajur. Mhm. kon sénégalais bu ma kenn waxal ne ma. yi nanguwuñ liggéey sénégalais yi nangu dañoo liggéey dañoo gisut liggéey loolu mooy li nga xamante bi mooy. moo fi nekk jërëjëf. ñu bàyyi la nga tàgg daan toog di naan ataaya tegal la sama tànk ndaw a toog fële naan nanguwut a liggéey. Mm-hmm. te fekk liggéey laa gisul. wallaay wallaay. bañu ma woon a liggéey mais gisuma ko mais ndaw day doon jàpp ni man mii nanguwumaa liggéey. Ah, naan ker fu keru. ngu suba gi fekk keroog ngoon nga fekk ko fa may tuxali sées <laughs> rek xam nga c'est que loolu booy li nga xamante ni bi mooy àddina te fekk nangu ngaa liggéey mais eh, gisoo ko voilà donc loolu la ñu bàyyi la nga tàggatoo